ما الغاد لي ما قاب عن كل ولي لغاد على بدر الوسودا من الزازال واسي والحسودا يقول العز وكون الله تبصير لا إله إلا الله ساق لخير الله فيما ينبغي لله قد وصلت هند جلوى وسانني هما يجر البلوى كتابتي قبل لدى البوار كفت حياتي إلى المدور علمني العليم هند ذاقرات مما يسع وكفاني الكافرات لم ينوني هند البور المورخات داهن لقمر أو دواء فاسقا يسر للجميل إن المولكات ما زانني عن جالب للمسركات عبات من لي كان إن الواسعات خادت لكلكل الرداء وساتيات مدلي الأنوار هند ظلمات وظالمين من كفاني سدمات بوك جردي بوك طالبي نيغي في تي كير سيرن توبا تي كولوبال غير ام اب جوتاي اك ليغا خامتيني بي مودي إيه، سيرن باسيرو مباكي عبد الخادر مي كادو خليفه جنرال كل مورد سيرن منتخا مباكي باسيرو يالا في لول تي اندك وير اك جابوت سيرن توبا غيب ma fas yéenee ànd ak Mama Moussa Niang ngir am ak jotaay ak sëriñ bi mu baaxee ñu ay kàddu yoo xamante ni bii dinañu dolli ci suñu taalibe waaye tamit ci xew-xew bi nga xamante ni dañ koo dëgmal ajjuma ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru septembre atum 2019 di daloo gi ñu fas yéenee daloo euh, jumaay Masaalikul Jinaan sëñ Mama ñu bàyyi la nga ziar sëriñ bi. maa ngi lay nuyu Habib maa ngi ziar sëñ bi bu baax mbake ñu ngi lay ziar ñu ngi lay jox wàccuwaay yu mot sëkk sëkk. ñu ngi ziar yi nga xam ne ñoo ñuy topp ci seen télévision nationale. jërëjëf Maman sëriñ bi ñu bëggoon rek nga baaxuñu ay kàddu incha allah ajjuma dees na ubbi jumaay Masaalikul Jinaan ñu bëggoon xam rek ban taxawaay la jumaay Masaalikul Jinaan am ci yoonu murid waaye tamit ci lislaam bismillahi arrahmani arrahim alhamdulilahi rabbil alamin wasalaatu wasalaamu ala alhaadi alamin سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين بوكو جولدي اك بوكي طالبي نيغي لين دي نيو في تي كير الخديم تي كولبان تي تيواي اك كريفتيف الشيخ محمود المنتخى الخليفة العام لطريقة المريدية حفظه الله تعالى ورعاه وزاد من نصره وتأييده kon ni ñu ko xamee xew-xew bi nga xam ne mooy jumaay Masaalikul Jinaan jumaa ji li jumaa di symboliser ci lislaam ñëpp xam nañ ko ndax wa anna al masajida lillahi fala tad'u ma'a llahi ahadan moo tax kerew bi may wax ci turu sëriñ bi foofu laa ubbee samay wax mooy ñu xam ne jàkk néegu yàlla la néegu yàlla la ci kaw suuf kon suñ borom a ko moom waaye nag kon jullit yëpp ñooy ñi koy war a dundal jullit nag buñ ko waxee amul xaj amul seen ndax euh, lama si jun la ala taqwa bu ngeen déggee alxuraan di ko wax mooy jàkk jubét nii waaye allazina taxasu masjidan diraar wa kufran wa tafriqe baynal mu'minin irsadan loolu baaxut kon jàkka dafa war doon loo xam ne jullit yi daa war doon seenu dajewukaay kon bis bii nag liñ ci mën a jàpp li ci ëpp solo mooy xam ne képp koo xam ne yaa ngi tuddoo Serigne Touba war ngaa bàyyi xel ci ne Serigne Touba ku fonkoon julli la ndax li koy firndeel bari na waaye li ci gën a teew tey mooy jàkkee Masaalikul Jinaan jii nga xam ne euh, Serigne Saliou Mbacké moo ko naaloon ba mu jaar ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara jaar ci Cheikh Sidi Mokhtar ba agsi tey ci loxoy Cheikh Mouhamadou taxa kon loolu li muy firndeel rek yitte jure ji ko jox mooy xamle ne l'islam ni ci julli màgge jërëjëf sëñ bi ñu fàttali itam yow bokk nga ci li ñuy wax maître d'ouvrage waaye it yaa doon xaatim contrat yi kon xam na na délégué délégué waaw loolu it jar naa wóoral te baax na itam nga wax ñu ginnaaw bi ñu defaree ba pare yan xew-xew la mën a amal foofu ci béréb bi loolu moom amal na ko njëriñ ci ñaari fànn ndax bu dee ci wàllu ruux barab boobu euh, xam nañ ne la ko ëpp la ëpp ci la ko wër lu mel noonu amu fa kon boo agsee ci dëkkee la Serigne Saliou waxoon bi mu koy def rek daa waxoon ne juma boo koy def ci bu dëkk daa war a màndexoo capital ba wala dëkk ba nam toll kon loolu itam li muy li muy li muy juñ ci ña fa dëkk ak ndakaaru gépp sax ak Sénégal gépp wala ci Afrique gépp mooy ñu xam ne julli yi bokk na ci li ñu war a gën a fonk mooy jaamu yàlla jaamu yàlla nag fonk bu ci gën a mag mooy mooy julli kon ña dëkk itam war nañ koy dundal am ci yëg-yëg boobu ngir xam ne tabaxuñ ko fa ngir rafetal waaye dañ ko faa tabaxal ngir bëgg nit ñi di ci julli ci wàllu adduna yitam xam ngeen ne war naa mën a xëcc lu bari ci Sénégal ci nit ñi di ñëw di ko xool si ndax

mooy jàkk yi na ko nit ñi di dundal dundal gi mooy fu waxtu fu fu noddetee kenn ku ci ne loo doon bàyyi loolu jàppoon na ko bàyyi te dem julli ji loolu bokk na ci li ci jiitu ci wàllu saytu ko nag niñ niñ ci góorgóorlu woon tabax mu àgg buñ ci defee lu yées genn wàll gi dana ko mën a saytu kon loolu moom jaaxal lu yoon wurat baax na Habib balaa ñuy sore ci waxtaan bi rek sëñ bi maa ngi jégul waaye dinaa la laaj yow mi nga xam ne yaay porte parole xalif général bu ma neexee sax ma ne xalif généraux ndaxte ci ci ci yoonu murit am na ci yeneen xalif sax yoo xam ne jot nga yor li nga xam ne mooy seen kàddu xam naa ne nag yan wi macha allah oyoful loolu ndax mën nga dellusiwaat ci rôle ak mission boobu nga xam ne moom mooy porte parole xalif. loolu moom tontu naa ci ba tey yoonu murit daanaka amul loolu. yoonu murit la na ko Cheikh Abdou Lahad jàngale woon dafa waxoon ne Serigne Touba. bi mu xamee na amul kenn amul ñaar taalim yor mënu koo séddale kii bàyyi ki dafa jël lépp dajale ko ci waxande waxande wi nag mu def ci caabi caabi ji nag mu teg ko ci loxol ki mag mu ne kon ñi seq njaboot gi nee na kenn suñu cee def dara te jaaroo ci ki yor caabi ji mooy ki fi nekk Sëriñ Tuubaa mm-hmm. waaye moom itam sëñut kenn laaj ko ci li ci waxande wi te joxewu ko ndax seen àll li bàyyi ci ne yoonu murit kon noonu la tënkoo mooy ki fi nekkal Sëriñ Tuubaa ñëpp dañoo dajale seeni kàddu ak seeni xalaat jébbal ko moom ci boppam nag porte parole amu ci yoonu murit ndax porte parole day fekk ngay am xalaat lu ñun nag li ñu tënku rek mooy lu ñu sëriñ bi wax loo ñu fas yéene fexe ba wax ko nam ñu ko di santaane lépp loo xam ne waxuñu koy lum ñu jege jege duñ ci wax kon yoonu mu daanaka porte parole gi sax may saa wax ne amut li am sax li am rek mooy sëriñ bi ci boppam li sëñ bi wax wala li mu bëgg daal loolu mooy liy wéy ci yoon bi moo tax itam diisut ndax ñàkk diis yi li koy waral boo xamee ne li ngay jëf du yëfi adduna liggéey Sëriñ Tuubaa nga ko war a jàppe am ci positif boobu lu agsi rek noonu nga koy jàppe boo ko yanoo nag wala nga jàpp ko adduna bu baax day dis ci yow mooy la sëñ Modou Moussa daa wax ne adduna kenn du ko yonoo bopp am xel lañ ko yonoo mu ne képp ku gis adduna dis ci yow da ko yonoo am xel da ko yonoo bopp waaw ñu seetlu sëriñ bi nii jumaa ji bi mu euh, noppee ba léegi bari na ay kilifa diine yuy jóge fu nekk ci Sénégal di ñëw di si barab bi mel na ni ñoom daanaka dañu cee boole seen bopp bu baax a baax a baax tey jii ana ban euh, woote ak euh, ni ngay tàllal loxo sa loxo ñooñu nga xamante ni dañoo jóge ci yeneen kër kilifa diine yi ngir bokk ci li nga xamante ni bii liggéey Sëñ Tuubaa loolu moom dañ koy rafetlu bu baax ndax man mi bari na ay kilifa diine yu bari ñoo xam ne woo nañ ma ngir siyaare si barab bi ma boole leen ak Serigne Bakki Faye euh, bu yàggut am na doomi Serigne Cheikh Ahmed Tidiane si dafa ma woo. wax ma ne kat damaa bëgg a dem ziyaari jumaa ja ndax xam naa ne sama waajur bu fi nekkoon dana ko def kon loolu dañ koy rafetlu ndax sëriñ Touba mission moo doon dajale julli laaj ji ko gouverneur général laajoon bokk na ci lam ci gënoon a tënk mooy xamle ne jullit yi daal ñëpp képp kuy wax laa ilaaha illallaah Muhammadu rasuulullaah rek ñoo ay jullit kon nag li ñuy wax sut fa amul ci mbirum sëriñ bi kon bu fekkente ne dafa tuddu masaliku Jinaan serigne touba ci bir téré masaliku Jinaan ci la waxé na fa kullu wirdin yuridul murida li xadratillaahi walan yahida sawaun intama ila aljilaani aw intama li ahmad attijaani aw li siwahuma min al aqtaabi is kulluhum qatan ala sawabi kon ñom bu fekkente ne dégg nañ ko nonu ragal na ne motax ñoo ñep ñu wuse nonu loolu nag dañ koy rafet bu baax a baax di ñaan noonu mu tàmbulee rek mu wéyu noonu ñu xam ne jàkkale joo xam ne euh, alali jullit yëpp jàkkee Serigne Touba waaye jàkk ji nañ xam ne jullit yëpp ñoo ko moom jullit yëpp foofu di julli baax na sëñ laata ñuy tëj pàcc bi ñu jagleel jumaa ju mag ji sëñ bi nga nga baaxa it euh, kan moo fas yéene jiite jumaa ji ko defee jullit yëpp xamandoo ko ربما أشوفنا فاتلي توتي ده جمعة جدة فهم تاريخ ده نحن نقص عليك نبعهم بالحق فاتلي في مجار باكسفي ده لولي تم فالذكر فإن الذكر تنفع المؤمنين ده برب قوي مسالك جان لجي كنت دو تجمعنا الشعب بالحد شكرا am na fu murid yi daa jëkk di jullee ñu xëccoo kook seen yeneen mbokk jullit Cheikh Abdou Ahad Mbacké ba mu leen di atta da leen di wax ne yéen lu ngeen fay julli taalibe yi ne ko koré ak tabaski mooy la ñeen neen jumaa lañ fi bëgg def dafay julli waxtu juróom kon naafila naafila du taxaw farat du taxaw ñu koy bàyyi dem ci naafila kon bàyyi leen ko ñoom waaye suñ borom moom boo ko liggéeyee la lam lay fayee da koy gën ci lañ amee fi ñu daa tuddee guy Masaalikul Jinaan jamono Sëriñ Abdul Ahad ñu di fa julli ba 2004 wala 5 ci la Serigne Saliou defar lu plan bii tey mooy ni jàkka ji ma tey Serigne Saliou moo defar lu plan ba mu koy defarul itam da leen yebal fu bari ne leen def leen ci nangam nangam laa bëgg ñuy dem di dellu si waat Serigne bi di jubbante ba yàlla def jumaa ji mel nii mel. tey ci 2006 Serigne Saliou Mbacké radiyallahu taala anhu euh, teqeer wi yebaloon Cheikh Mouhamadou Mountakha mi tey mu dem tàmbali liggéey bi loolu tam kiimaan feeñaat da ci ndax moo ko tam moo ko tàmbaloon moo ko ubbiwaat kon ab junj la yàlla def 2007 euh, bi fi Serigne Saliou Mbacké bàyyi ko. fekk ci diggante boobu Serigne Saliou liggéey bi mi ngi ko tegoon ci loxol président Abdoulaye Wade moo yoroon liggéey bi ci yooyu jamono mu di ko taxawu àndoon ko ñi nga xam ne danaa ci ñëwaat seen ci kanam la ko yeexaloon nag bokk na ca barab ba dafa am benn shérif boo xam ne dañ ko fa dencoon plan bi nag bi ñu ko defaree mu ëpp fa jumaa ji nekk nga xam ne buñ ko tabaxee faw ñu tabaxaale ci kaw barab bi ci biir loolu président Abdoulaye Wade jokkoo ceeg Serigne Abdoulaye si Al Amine ñu ngi ñaan suñu borom doole ay leeram moom itam mu def ci yitte ju kawe joo xam kenn du ko fàtte ndax woon na leen def ci yitte sonn ci wax leen ne kat dama bëggoon yéen ndax liñ ñu fi def julli yëpp ko bokk ñu fexe ba tuxal barab bi ngeen seet fu fu ngeen bëgg ñóbbu leen fa tabaxal leen fa jumaa waaye yàlla def diirub ñaari at yëfi jafe bi mu jafee nag ñoom ca leen delluwaat ca président Abdoulaye muy Pape Diop ak maître ak euh, Serigne Bakk yu mi nga xam ne tey moo ci jëwriñ ji bañ demee nag euh, ci lañ tàmbali di wër ba gis barab bi tey bañ demee ba gis ko nag demaat ci moom wax ko ko moom itam mu joxe digal ne nañ fexe ba barab bi dugg ci loxo Sëriñ Tuubaa kon loolu mooy histoire bu njëkk ba moo waral euh, loolu fekk na boobu Serigne Saliou bàyyi ko na fi muy fekk tombe bi ak xilaaf ak Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké bi Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ak seen nag ci la wax ne nañ ci dolli juróomi soroor mu mu muy xaw nuroog la waaye juróom bu tëdd defan Cheikh Mouhamadou Fadil ndax Cheikh Maodo Moustapha ci ñeent ñeenti soroor la ko bàyyi woon mu ñëw dolli ci juróom mu ñëw ci 2009 euh, ñu te xeer wi ci pàkk bu mujj bi keroog maa fi yëkkatoon kàddu ci juróom yàlla def itam ñu dox ab diir liggéey ba sottiwut ba 2011 2010 la fi Cheikh Sidi Mokhtar ñëw fekk Cheikh Maodo la yoon Baara Mbacke woote woon na ko ba wax ñu julli fa kore ak tabaski joxe ndigal ne nañ fa gàmm gàmm gay lam ci waxoon ñëpp dégg nañ ko yàlla def bi Cheikh Sidi Moussa ñëwee nag fekk liggéey bi mi ngi ci loxo yi président Abdoulaye Wade mu jox ma ndigal yónni ma ci moom ne ma damaa bëggoon dama bëggoon eh, jumaa ji comme liggéey bi yàgg na mu joxaat ma ko bu ko defee man ma seet nu ma ko liggéeyee ànd ko bokki taalibe bi ba mu ko ko waxee man mii maa demoon keroog ànd ak maître ba dikkee ñam bañ demee ñu wax ko ko mu ne amoon naa ci yéene de ma soñoon sëriñ bàyyi ma ma defar ko waaye nag comme looloo ko gënal kon ab taalibe bi moom ndigal lay wéyee kon bàyyi na ko joxaat naa ko daal may jébbalaat lépp ma ñëw ci Cheikh Sidi Mokhtar teg ko ci loxoom. ci la ma Sidi Muxtaar yónnee ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi tey ne man naa fa dem xamal ko ne ko liggéey jumaa ji def na ko ci muy jëruñ bu ko defee ñun ñu topp ci ginnaaw di ko jàppale ci biir liggéey maa ngi ko fekk dara mu ne kër wax ko ko woosi ko mu ñëw ci sëriñ bi sëriñ bi jox ko ci ndigal ginnaaw bi la Cheikh Sidi Muxtaar eh, waxal boppam kàddu yi mu fii ñëpp di ko dégg wax ne Cheikh Mouhamadou Mountakha laa def muy jëwriñ ji ñun ñi ñu topp ci ginnaaw maag Serigne Mbacke Faye ànd ci liggéey bi di ko doxal. daa ci joxe ndigal woo ci taalibe Serigne Touba wax ne ku ci feeñ da nga bu faw nit ñi jële ko positif ak yitte ca loolee itam ñu tàmbali nag war a taxawal liggéey bi ni ñu koy doxalee Cheikh Mouhamadou Mountakha xam ngeen ni mu baaxoo def ci ay kilifam rek. mu ne ko ndigam sëriñ bi joxe ne ndigal daal man amatuma jënd yitte lu weesu fexe ba li sëriñ bëgg am ñu daal di wootam ndaje fii ci kër gi tey fi ko fi ko woote woon ndaje mu yaatu moo xam ne ñëpp ko fekkee woon ku ci ne joxe say xalaat ci taalibe yi bañ waxee loolu ba tënk ginnaaw bi ma xalaat tëral commission bu yaatu ba jotoon naa ci woo ñu bari ci njabootu Sëriñ Tuubaa gi ndax damaa tànnoon ci kër yu mag yi mu kër doomu Sëriñ Tuubaa ak yeneen kër yu mag yi ci biir yoon wi fu ci ne ma tànn fa kenn ku la teewal ci biir liggéey bi ba ma ko tànnee ba noppi nag ma demaat ca fekk Cheikh Mamadou Mountakha damaa wax ne ma ni la ci sëriñ bi doyloo nu ko raw ni laa la ci doyloo kon mooy itam tegaat naa lépp ci solo xa dama leen di gunge di leen wétali rek ma ko yóbboo ci Cheikh Sidi Moukhtar fekk ci Cheikh Mamadou Mountakha laa njëkk jaar mu yebalaal ma ci sëriñ bi ma dem ci moom ba ma demee leeral ko lépp mu rafet rafetlu ko ba bis mu xëy woowaat ma fekk ñuy bëgg a tàmbali liggéey bi mu ne ma kat li nga xalaatoon jub na ci man waaye eh, loolu dafa bokkut ak doxeenu yoon wi léegi daal li ma gënal rek mooy ne mun Muntaxa jiitu yaa yaa ak yow ak mbàkk yi fay ngeen topp ci ginnaaw waaye dooy na ndax nit boo koy liggéey loo danga koy wóolu yaa tàmbale taxawal commission yi bi bëreetut bëri bëreetutoon lool Aly Ngouille Ndiaye mii moo jiite woon commission technique bi ak yaayam ñu bari booba nekk gudd ministre ehm, ma jël Serigne Mbacke yu fay def ko muy coordinateur ndax ay commission yu bari la woon am na ñu yor wàllu diine ji am nañu yor wàllu finance am nañu wàllu technique bi ba commission yi jeex Serigne Mbacke yu fay nekk coordinateur bi di doxal liggéey bi nekkal ñu fa ak sëriñ bi ci biir loolu itam. Cheikh Sidi Moxtaar def ci yitte lam njëkk a yëkkati joxe ko mooy un milliard la yëkkati lañ njëkk a njëkk a yëkkati tàmbale ko liggéey bi ndax liggéey bi doon liggéey bu tuuti ndax sëkk ba rek xam ngeen nam demee micro yi xam ngeen dem demee liggéey bi itam bokk na ci la tax mu gaaw li ñu tuddee couvrage glissante moo tax liggéey bi mën a gaaw ndax bu toon loolu boo xoolee jàkk ju toll nii gàtt gàtt ñaar fukki at jëm ko war ko waaye yitte jure ak ni mu itteele sëriñ bi rek tax ñu def luñ man ak luñ mënut li yàlla def itam fekkoon na booba entreprise bi ñuy wax CDE ca jamono jëkk yooyu ñoom ci lañ fekkoon ñu yoroon ko ñoom biñ dikkee itam ñu siyaare si sëriñ bi sëriñ bi neen du ko dindi seen loxo waaye rek nañ ko jubbantiwaat xoolaat ni mu tëddee waa commission bi daje di waxtaan ak ñoom ak Aliou Ngouille Ndiaye mi ak sëriñ Mbacke Faye ñu necce necce ba mujj déggoo ci ñu wàññiwaat lépp nga xam ne eh, ñoom waat nañ ci ay milliards wax ne buñ ci dul gañee dara itam liggéey Sëriñ Tuubaa jaral na leen li yàlla def itam bi ñu waxtaanee ba déggoo ci lépp Aly Ngouille Ndiaye mi tey kerew dafa ñëw fekk ma ci sama tool yi mure fi mu toog ci ëtt bi di ma xaar eh, fi lañ ko waaye ne ko nommé nañ leen ministre histoire bi noonu la demee nga gis liggéey Serigne Touba moom boo ci sooboo yitteeg positif rek lam la ca daal di fay. 2012 bi mu agsee président Macky Sall ñëw bi mu dikkee daf ma wax ne ma dafa laa bëggoon yoon ci Serigne bi ndax dafa bëgg barkeelu ci jumaa ji ba xam ci biir jumaa ji lay doon ni ma ko defee ci kër diine yi wooyu eh, yeneen sànc yi nga xam ne des na ca jumaa ja muy salle de bi wala institut bi bu fekkente ne mën naa ko tabax ma defar ko defar ko sëriñ bi ci biir lool nag xam nga yoonu murid ni mu baaxoo demee rek ci laa ko daal xam naa ne li li ma jàpp ne moo gën mooy wàllu tëli yi ak assainissement bi ak éclairage bi ndax bu dee tabax bi moom xam naa taalibe yi defal ko seen bopp mooy gën a sëriñ bi ci la fa yebale ministère Mor Ngom moo fi newoon boobu ñu xayma ko fekk barab ba daa doon barabu ndox euh, assainissement bi jafe woon lool ak tëli yi ci lañ ko tàmbali woon 2014 ci leen tàmbali liggéey bi bi ñu koy tàmbali itam dama leen boole ak Serigne Bakio fay ak architecte bi ñu ànd ak ñoom di ko xool ba ñun nañ ko bëggee woon rek ñoom ñu defee ko noonu ba dugal nañ ci xaalis bu bari boo xam ne wax nañ ko waxaati ko ñu daa tàmbul liggéey bi nag. Cheikh Mahoudou Mountakha 2012 mu dellusiwaat fii nag fekk mu ne ma de sëriñ bi de gis naa ne yitteem jëpp ci jumaa jëla jëm kon may li ma fas yéene mooy amatuma jën yitte li may def nag mooy weeru ma duggati wu ne fukki fan ak juróom ya dam bu ma xëyee damay ànd ak yow yendu si ci masaalik ñu tàmbali liggéey ba fukki fan ak juróom jeex ma dellu Tuubaa bu yoroo ci accès ma dellusiwaat noonu la ko sëriñ bi tàmbalee xam nga metti woon na ci moom ndax ñun ñi nga xam ne ay gone yu tuuti lañ sax jotaay bi daa métti ci waaye sëriñ bi yitte yeeg positif bi mosu ko yëg ak bëgg ndamul kilifaam ñu tàmbali liggéey ba noonu ñu dox ab diir liggéey ba ñoom itam ñu def ci yitte sëriñ Bakku itam faaw ñu sant ko sëriñ bi sax am na lu ma yóbbante ay kàddu waaye ak seegut ci sant ko ndax taxawaayam ndax ba liggéey bi tàmbalee ba nëgë ni dafa bàyyi këram bàyyi ay yitteem ñëpp sax daanaka foofaay buroom léegi loolu nag wane na ne Serigne Touba ñor na ko kon moom itam faaw mu su koo ñàkk sent gërëm ko ci taxawaayam ci loolu ñu tàmbali liggéey bi nag di def noonu ba tabax bi àgg bi tabax bi àggee ñu war a dugg ci finition yi finition yi boo leen gisee mu am diir bu yàgg mu taxaw looloo ko indiwoon fekk boobu dafa am benn architecte bu ñuy wax raas ab almaana ñëwoon ci man Touba siyaare sama jébbalu ci sëriñ bi fekk moom moo defar architecture jàkka yi Màkka ak Madina liggéey ñi fi mu mujj def mu ñëw jébbalu ab armala bi mu dikkee nag def dafa bëgg a liggéey sëriñ tubaa jumaa ñu wax ko ni niñ bëgg mu mel ne maanaam mu liggéey ci lu yàgg daanaka lu jegem at ngir du xool décoration yi nu mu war a mel ba yàlla def décoration ya mu mu muul ko ba xam ni mu war a mel bi mu àggee itam mu cher ba ëpp ndax finition jumaa bu dee dem ay trente huit milliards ba ci àgg ñu ne cinquante milliards loolu ëpp na moo war loon moom at moo xam ne liggéey bi eh, àggutoon fa mu ci njëlbeen bañ demee ba xam ne loolu nag cher na ndax bu ko taalibe yi ma ne diis na ndax du masaali képp fi nekk ci naali sëriñ bi yee naal dafa bëri ma waxtaan ak Cheikh Sidi Mokhtar fekk mu muy soññee liggéey bi ne liggéey bi de bëgg naa ñu gën cee def yitte mu gaaw ma ne ko de bëggoon na maa xam som bi nga xam ne bëgg fas ko ci yéene maa defaat ngir liggéey bi mën a àgg ba julli ko sëriñ bi daal may wax lim ba nga xam ne xalaat na ne war nañ ko cee may defaat ngir jumaa jàgg man ne ko nag buñ xasee ba xam lim bi la ca des mën a xam ni ñu koy lijjantee ah. ma jóge fii ànd ak sëriñ Mbacke Faye ak architecte bi Maysa Touré ñu dem français njëkkëram boo ñuy xool finition yi ba fa jugee ñu dem Allemagne ndax moom fa la li ci ëpp yi fa la ko doon defaree ba ñu fa jugee demoon nañu Autriche ndax lampe yi ak sonorisation bi fa lañ ko doon njëkk a xool ñu jugee te fa dem Espagne ndax am na ci décoration yi ak karo yoo xam ne fa ko doon séddu jugee te fa dem Italie lépp ci benn tukki bi la bañ dellusiwaatee ginnaaw bi ñu jugeewaat fi dem Dubaï bañ demee Dubaï nag. fekk architecte bi la ëpp ci seen usine foofu la nekk léegi bañ demee ba visité ko xool waxtaan ñoom ba xam fañ mën ba ñoom ñu jébbal ñu plan yi. ba mbakk yi fay leen lam leen war a fay. ñu xalaat nag ne lee dana bari bopp ci laa xalaat nag ci sama xel ci biiru jotaay ma maa toogoon sëñ Cheikh Baram sëñ Sidi Moxtar ak sëñ Mbacke Faye ak Maysa Touré ñoo bokkut ak jotaay bi ma wax leen ne. Eh, ndegam finition yëwut fenn bu ngeen xoolee li war a jar trois cent mille ndax moom am na ci ay karo yoo xam ne gis benn kar moom facture ko trois cent mille ba quatre cent mille may leen cent mille cent ñaar fukki junni doone ci loolu décoration bi itam daanaka moo toll na huit milliards ma ne ko décoration huit milliards bari noonu lañ ko topp ba yëpp jeex mhm. tawfeex jooju daal lañ ci am ba ci bunt yaag làmp yaag mu daal di leer ñu daal di koy song nag ba liggéey bi àgg daanaka bi fi Cheikh Sidi Mokhtar di bàyyi ko fekk na décoration biir bi àgg ba ma ni sonn ko julli waaye boobu bitti gi moo des ak finition yi ci soro yi euh, Cheikh bi ñëwee itam moo doon jëwriñ nekkaat fi suñu Tuubaa mu xam ne liggéey bi moo ko war a àggale mu mu mu toppaat ko moom itam li ko ci war boobu ba nëgëne ci liggéey bi ci lu ñu war a joxe rek mu ngi koy def kon nag liggéey bi daal. ci tëj ko mooy di sant taalibe yi ndax lépp ñoo ma uh-huh. bàyyiwuñ kenn nag uh-huh. li joxe ki tàmbalee ci dërëm ba ci milliard ndax jëf ji moom la ci am solo mooy positif bi ak yéene ji ak sellal ngir Sëriñ Tuubaa kon nag sëriñ bi leen di sant leen gërëm uh-huh. di ñaan li suñ borom dalee ci ko tabax jàkke ak ku ci tàbbal saw ñaq yàlla na tàbbi ci seen biir. amiin amiin ak suñu Tuubaa. amiin Mbàkke waaw ko tabaxee te xam naa ne mooy question bi. waaw ku ko war a mën a jiite kan moo war a nekk. waaw ki ko war a mën a jiite it. Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa dafa xalaatoon na ko lu yàgg boo boo Cheikh Sidi Moukhtar moo fi nekk ndax julli gi yaar la mooy imaam ratib ji ak imaam yi jiite kori ak tabaski bu dee imaam ji jiite koor tabaski mooy Serigne Moustapha Cheikh Abdoul Khadir yàlla def na Cheikh Mouhamadou Mountakha Cheikh Sidi Moussa da ko tegam ci loxoom moom moo ko xalaatoon ba mu ko xalaatee it daa bàyyi ko ci sëriñ bi jaar sama kër dafa bett sax keroog yégal ma ko ba moo ko waxee ma ne ah, xam naa bu xat ci moom de gisuma ku ku ku ko dàq. sëriñ bi ne ma sañu koo bañ ndax ñun ñëpp li ñuy def kenn mënu kenn mënu ko ci kon moo ko tànnoon moo tax sëriñ bi dafa wax ne loolu da koy wëyal muy jiite koor ak tabaski bu dee ci ilimaani ajjuma ji nag mooy tam ba mu koy tànn boobu Cheikh Sidi mi ngi fi yàlla def na man mii la yónni woon ci moom sax ne damaa xalaatoon daal jumaa bu àggee sëriñ Bachir Lo moom suñ Moustapha di sëtu suñ daa Abdourahmane Lo suñ Moussa la waajuram soxna muslim suñ Tuubaa la ñëpp xam nañ ne mu demee ci yoon bi kon hmm. eh, moom la moom la sëriñ bi tànn mu nekk ilima imaam ji di jiite ajjuma ak waxtu juróom bi am na am na ñaari naayib nag eh, yoo xam ne toftale ko toftal na ko ci toftal na ko ci ginnaawam ñoo xam ne itam xam naa ne bu ñu àggee ci bis rek danañ leer leeral seen seen tur sëriñ bi nag daf ma waxoon ne ma eh, ba mu ko tànnee boo Cheikh Sidi Mokhtar bi fa woon dane ma ilimaan jër laa tànn li ci des nag lépp moom bàyyi naa la ko nga tànn ko moo ko waxee woon itam bi fii Cheikh Sidi Mokhtar bàyyi ko ba muy koy xalaat ubbi itam keroog ba mu ñu woowee maag Serigne Bakk yi fa loolu la yeesalaat ne ma daal imaam ji laa tànn ak ak naayib ju jëkk ji li ci des lépp nag yaa xool ni nga koy tànnee mm-hmm. loolu nag yàlla def na ñi ngi ci ba incha allah daanaka li ci ëpp solo def nañ ko xanaa kon sëñ bi ñu ñëw rek ci gannaaw bu ñu jógee ci Masaalikul Jinaan ku ne xam na ni buñ ci noppee rek dañuy daal di dëgmal màggal gi muy bésu sëriñ Touba di bës bu mu fonk lool eh, joxe ci ndigal waaye nag dañoo seetlu ni eh, jamono bi ñu toll nii jamono bi ñu toll nii màggal gi day tombeek nawet eh, ndax am na ay matukaay yu ñu jël ba taalibe yi ñëw tuubaa mën a màggal si jàmm ba ndox mi nga xamante ne bii mooy am léeg-léeg ci yenn mbedd yeeg yooyu ñu indi ci ay saafara. fii dëkk Touba toll ci nawet bi eh, CRD màggal Touba daaw fàttali woon naa ko ci kanamu gouverneur. ne woon naa ko màggal gi bu dul déwén wala at mi jëm dana tabi ci biir ndox mi kon waris na ko bàyyi xel fag ko ren jii itam ba fa ministère bi ñëwee wax nañ waxaat nañ leen ko fàttaliwaat leen ko wax nañ leen itam dénkaan war a wax ndax eh, am na ci quartier yoo xam ne. bu xasee ba taw diggam ak Touba day dagg. muy fu mel ne fi ñu buqatu barakat am na fi yenn quartier yu xaw a demee noonu. kon loolu faw ñoom ñi nga xam ne ñoo yor loolu ñu sóoraale ko fexe ba balaa màggalu Touba ak di dellusiwaat nga xam day fekk mu new ci mu nekk ci digg nawet bi ñu fexe ba lijjanti ko ndax bu dul loolu dana nekk ay tumuraank ak i ma ko ko waxee rek nee na ma dégg na ko ñi ci woon waaye ñoom ñi nga xool euh, buy dellusiwaat balaa màggal gi jege dana wax fi ñu ci toll. kon loolu ñu ngi leen ci diglu uh-huh. xanaa xëy na Habib ginnaaw màggal gi màggalikul jinaan yàlla def na dëgg-dëgg mbir mi moom daanaka sotti na xam uh-huh. na beneen chantier boo xam ne ci yoonu murit taxaw na muy université Touba uh-huh. boobu baax na sëñ bi nga baaxee taalibe yi fan la toll ak bu nekkee it am na woote boo xam ne da koy woo taalibe yi ci liggéey boobu. Uh, xam nga mbiru sëñ Touba moom noonu la baaxoo moom lu lu àgg rek ñu tàmbaliwaat leneen. ndax xam ngeen ne chantier sax dafa duggante ndax euh, jumaay Tuuba finition bi tuutee ci des xam naa ne bëreetul sax ndax matériel ya ko doon àggale ma nga fa mhm. xëy na mën naa am ñaari weer ñett gën jàppare fekk mu jeex waaye université bi sëriñ bi xaaru ci loolu mhm. ndax li naa li di diis diis mhm. xam na ne Sëriñ Tuuba moom luñ ko sëf rek attan na ko ndax 37 milliards néew na teew néewut rawat na mu fekk la nga ci yeneen waaye xam gim xam taalibe Sëriñ Tuubaa yi ak leen Sëriñ Tuubaa jaral moo tax amu ci benn xalaat lu wees soobu ko eh, incha allah xam naa fii ñaare ay bis war nañ faa def benn eh, siyaara bu mag boo xam ne buñ ci àggee danañ woo ñëpp ñu ñëw gis ko eh, ñi ñi nga xam ne ñoo yor liggéey bi tam nekk ci loxol Serigne Thierno Mbacké buñ ci àggee daal leen ko yëgal ngir nit ñi xam fi liggéey bi toon ndax ma ngay sori bu baax ku fa dem rek da nga xam ne liggéey ba ma ngay tegu ci yoon ndax ku fa àgg da nga xam ne diiru bi ñu ko wootee léegi bâtiment ya fa taxaw doo mën a xalaat lii war na fi mën am kon nag taalibe yi moom li ñu joxe laaj mu rusi waaye ku fa agsi danañ xam ne sëñ bi defal na leen ko foo xam ne dara rëcc ci lépp tab na ci sëriñ bi incha allah defe naa moom li ñuy mayoon ci waxtu wi jeex na xëy na kay li ma ci bëgg a njàmbaas rek mooy xam nga ci ay jamono amoon na it ay ndigal yoo xam ne digaloon ko taalibe yi ca ca Touba. ndax eh, ndigal yi moom mi ngi wéy ci ni nga xam ne noonu ngeen ko bëggee woon am am su nekkee it am na loo xam ne bëgg ngeen ko ñaxaat taalibe yi. waaw loolu moom dañ ci sant rek ndax ab taalibe li ko war mooy sami'na wa ata'na sami'na wa ta'atan rek. samihna wa asayna wa ab taali bi du ko wax ndax ab taali bi kat ku ko doon ku ne yaa jaayante ndax ci sa coobare nga koy defee mooy almurid kon boo jaayante nag ne lu ma sëriñ bi digal dinaa ko def bu doo sëriñ bi digalee da nga ko war def ne ko sëriñ Tuubaa santaane daa dafa wax ne bi muy taalif sifaatu saadixel murid bi ixtisaar nii ab murid saadix war a mel doo ko cee wax dafa wax ne damay bañ taalibe bi di woro woru gi nag mooy jàpp ne ab taalibi nga te doonoo ko kon alhamdulilah rabbil alamin sëriñ bi bi mu koy santaane daa fedd li li yàlla suñu borom tere rasulullahi tere ko sëriñ Tuubaa ñëw indi ko mu yeesalaat loolu waaye du tere boppam tere yëpp yàllaa ko tere te suñ borom itam lépp lu mu tere jàmm mooy la gën ci moom kon eh, nit ñi nag ñu ngi leen sant bu baax ndax sëriñ bi sax santaane boppam julli gi ndax yëg na ne bi mu ko santaanee xam na ne seen njëriñ te jëfe ko jëfe ko jëfe goo xam ne sax kawe na njort kon nag ñu ngi leen di ñaanal li suñ borom daari ci ku topp ndigal yàlla nañ dajeeg moom ndax si eh, fàttali ci rek Cheikh Abdoul Ahad Mbacké ba mu ko jëkkee tere dafa am ñu ñëw ci moom ne ko sëriñ bi de faw nga waxaat ndax nit ñi li nga tere bàyyiwuñ ko Cheikh Abdoul Ahad ne du ma ci waxaat benn baat ndax li ma tere de du samay tere damaa fekk yàlla tere ko yonente bi tere ko Sëriñ tere ko ma tere ko ndegam yàlla mi bind ñëpp nag digle na te nit defuñ ko rasulullahi tere ko nit ñi defuñ ko Sëriñ Tuubaa tere ko nit ñi defuñ ko man Abdou Lahad ma tere ko nit ñi làqatu di ko def loolu doy na ma ci sëkk <laughs> kon loolu mooy tënk bi ci bi koy bi koy jeexal rek foofu kàddu yi di ñaan eh, ubbiteg jumaa ji ñoo dugg ci bismillahi rahmaani rahim génn ci alhamdulilahi rabbil alamin mu nekk mubaarakul ibtidaa yi mooy mënul intihaa yi xanaa kay di sant bu baax sëriñ bi ci kàddu yu leer yi nga xamante ni bi euh, taalibe yi yaakaar naa nañ ko dégg te dinañ ko topp te dinañu jariñ bu baax a baax a baax euh, ñu fas yéene ko waajale rek euh, masaalikul naan ubbite bi di ñaan suñu borom defal ñu ci tawfeexu sëñ Tuubaa bu baax a baax a baax ñu lay sant bu baax a baax sëñ bi di ñaan suñu borom gën laa taxaw ci liggéey bu am solo bii ma Makhone ñu ngi sant bu baax di sant kon mbokku euh, jullit yi mbokki taalibe yi doon seetaan seen télévision nationale RTS ngir jotaay bu am solo bi ñu am ak Serigne Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdou Khadre mu yor kàddu yoonu murit euh, ma àndoon ko ak Mama Moussa Niang muy ay euh, tontoog laaj yu am solo yoo xamante ni bi yàgg nañ koo bëgg mébét ko muy loo xamante ni bii RTS gépp ñoo ko demandé Sénégal yëpp ñoo ko demandé Afrique bépp yëpp ñoo ko demandé ngir Euh, kaddu yoo xamante ni bii dafay gën a dëgëral suñu taalibe dafa ñuy gën a tax ñu gën a bëgg Serigne Touba gën a bëgg lislaam gën a liggéeyal suñu borom kon ñu leen sant bu baax di leen gërëm ba yeneen jotaay ngeen xam ne nag euh, inauguration Massalikul naan nañ def démb ca euh, bi sëñ bi ñëw en direct ak moom bi muy dugg si Ndakaaru ba ni mu ñëwee ci fii ci kër sëñ Touba gi ci Colobane loolu lañ fas yéenee ànd ak yéen ci lépp lu aju ci bés bi incha allah seen télévision nationale dinañ ko indil bu soobee yàlla jërë ngeen jëf bay leen jamono نفع لخير الله